Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse dal ak jàmm ci yëglekaay yi dañu koy door rek réew mi quotidien mi nga xam ne rek dikk na ci audit yi nga xam ne rek Waly Diouf Bodiang nar na koo amal ci wàllu ressources humaines yi ca port autonome bu Ndakaaru yéene kaay bi ne directeur général bu port autonome boobee nga xam ne rek lépp ci koomuk Sénégal foofee lay jaaree Waly Diouf Bodiang jël na dogalub saytu nag lépp loo xam ne rek mooy doxalin bi ñu ko fi jiitu doon doxalee bokk na ci dakkal lépp loo xam ne rek mooy contrat à yi nga xam ne

bi nga xam ne rek moom la doon amal ci plateforme pétrolière yu Sangomar yi nag moom président Bassirou Diomaye fay nag ma ngay rafetlu gi mu fekk ci doomu Sénégal ya lu jëm ci wàllu production bu pétrole beeg plateforme Sangomar yéenekaay bi ne président Bassirou Diomaye Faye ma ngay amal mode immersion 24 heures yëglekaay ne ab visite la doon amal ni ki démb ca teenu Sangomar yi nag yéenekaay bi ne bas jamono ji ma ngay rafetlu liggéey bu am solo bi nga xam ne rek doomu Sénégal yi ñu ngi koy amal jamono ji nag bari lu njëkk jëm ci wàllu pétrole bi nag daañu ko produire balaa yàgg dara moom ma ngay xam ne nag fierté gi nga xam ne am na ko rek ci gis ay barigoy pétrole yoo xam ne rek ay ndaw Sénégal ñoo ko daal di produire ma ngay rafetlu itam nag taxawaay gu am solo gi nga xam ne rek moom la ñu taxawee boobee liggéey waaye mérite bi nga xam ne rek moom la ñu am ci ñi nga xam ne rek dañoo mës a gëm ne suñuy meññeef mën naa jur dara ëllëg lii quotidien ne ci diggantaatum 2025 jàpp 2027 ci wàllu pétrole boobee nag mën nañ caa am ay recettes yoo xam ne rek bu ñu ko xaymaa toll na ci 576 virgule 3 milliards ci francs CFA 11 virgule 7 millions ci ay barigoy pétrole yoo xam ne rek ñu ngi koy xaar ci atum yoo xam ne rek ñu ngi ko jagleel marché domestique ma nga woon ca teenu Sangomar yi nag doon fa amal ab tukki ne meeku addu jëmale ci leneen mu soxal Le Quotidien yëglekaay mi dikk tey jii ci njeexitalu grève bi nga xam ne rek ci la mëñee soobu woon yéenekaay bi ne ay waxtaan yoo xam ne rek kii di béy di aañ amal na ko loolee nag moo daal jur saafara ci ci coow li nga xam ne rek doxoon na ci diggante meññee ak ñi nga xam ne rek ñoo di état bu Sénégal industriel yi jamono ji nag la ñuy woote bokk na ci ay waxtaan ngir déggoo mën a am vox populi ne ginnaaw xëccoo ak menaces yi nga xam ne rek moo doxoon ci diggante état bu Sénégal ak ñii di meññee ñoom ñooñee nag mujj nañoo yolamal yëf yi daal dellu ginnaaw ndànk ci seen xeex boobee ñu bëggoon a soobu bu ñu sukkandikoo ci président Ousmane Mbaye na ne ab lëkkaloo gu jaar yoon ci diggante pouvoir public beeg secteur privé bi rek loolee moo leen a may ñu daal di relever défi yi nga xam leen di xaar laas yëglekaay wax moom itam ci bras de fer bi nga xam ne rek amoon na ci diggante njëgu mburu mi nga xam ne rek moom la état bu Sénégal wàññi yéenekaay bi ne ma ñëwee jamono ji nag ña ngay bàyyi lépp lu ñu jàppoon ginnaaw pression bi nga xam ne rek état bu Sénégal teg na ko ci seenub ndodd l'observateur ne lu jëm ci wàññite gi nga xam ne rek état bu Sénégal indi na ko ci wàllu mburu mi fi mu toll ni nag ñu ngi dox ay jéego yu waxtaan yoo xam ne rek ma ngay dox ci seen digganteeg mëñee yi waral ñuy xaar ni ki tey jii déggoo am ci diggante ñaari wàll yi addu jëmale ci beneen yëglekaay mu di vox populi ne tey ji nag lu jëm ci wàllu traite des personnes yi nga xam ne rek moom la ñuy amal fii ci réew Sénégal ak lu jëm ci wàllu trafic humain yi rapport bi nga xam ne rek moom lañ ci génne atum 2024 bii jëmale ko ci réew Sénégal département bu état bi nag ma ngay joxañ baaraamu tuuma daara yeeg sëriñu daara yi naka noonu réseaux sociaux yeeg état bi jàpp leen ne nag lu toll ci 487 ci ay victimes yoo xam ne rek dañ leen di forcer yalwaan gi lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom ci ay nit yoo xam ne rek dañ leen di sàkku saay su nekk te lu ci ëpp ci ñoom nag toll nañu ci téeméer ak juróom-ñett yoo xam ne ay tout tànk lañu ay jigéen yoo xam ne rek boo xaymaa ay at yi ñu am toll na ci fukki at ak ñaar ñu leen di exploité ci ay trafic sexuel yoo xam ne rek ci ay région aurifères bokk na ca Kédougou gee nga xam ne rek gis nañu fa ab réseau bu fay recruter ay mineurs di leen jaayloo seen bopp mbaa mu leen di demloo ca Espagne waral ba rapport boobee nag di sàkku ci bu Sénégal ngir mu daal di gën a yokk ay jéegoom ci wàllu poursuite pénale yi nga xam ne rek moom la ñuy amal jëmale ko ci crime yooyee nga xam ne rek moom la ñuy faral di nemmeeku ci réew mi wax ci lu jëm ci wàllu tàggat yaram ngay àddu jëmale nag ci lu soxol équipe nationale bu Sénégal ak tontu yi nga xam ne rek moom la maître Augustin Senghor yëkkati ci ŋàññ gi ñuy ŋàññ kii di Sadio Mané ñeel doxalinam ak Aliou Cissé stade yëglekaay àddu jëmale ci wàllu jënd meek jaay mi di wàllu mercato bi ak départu kii di Iliman Ndiaye ca Marseille ngir dem foofee ca Everton lamb ji la ñuy àddu jëmale Abdou Bakhoum mi nga xam ne mooy manager bu Ama Baldé ma ngay tontu Gris i ci bi ma nga naan ko bu ñu yegsee ci bésu lamb ji da nga ko gu doy gi nga xam ne rek kii di di frise yi yëgee woon na ko ci kaw seen ca bésu fête de la musique bi nag jamono ji nag ab plainte bàyyeekoo na ci ànd sàmm ji koy jëm ci moom ngir yóbbu ko ci kanamu yoon leneen loo xam ne rek teree ji na ci kanamu yoon ma nga xewee ca Orkadiéré mu di ab soxna bu toll ci juróom benn fukki at moom la ñu teg loxo ginnaaw bi mu xarafalee ab bébé bu am juróom benn weer mbokk yi li yëgënoon a fa si yëglekaay jàmm ak jàmm Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ñu leen doon